E e ba ay téléphone électronique et service nekk ci marché central bu Kaolack ci wetu montre bi ci route Sonatel bi bu ngeen fi yegsee lépp luy électronique téléphone yu baax yi ngeen di dégg ci àdduna bi yépp bu ngeen dikkee fi nga xamante ne moom moo di bàyyi téléphone et service di ngeen ko fi fekk tàmbalee ko ci iPhone bi nga xamante ne moom moo mujjee génn ci àdduna bi ci jamono bi te ñëpp di ko coow ci qualité nag laa la wax Samsung yi tamit am na fi ci jiga giga 64 giga ba ci 32 giga ay Samsung yu mucc ayib nag ànd ak seeni garantie mbokk yi yemul foofu techno yi tamit am na fi tàmbale ko ci 32 giga ba 128 giga am nañ fii tamit ay Nokia yi mucc ayib ba ci mujjee génn ci jamono le ci ay photo mi ak son yu am qualité itel yi tamit ñu ngi fi ci ay itel yu high la class yow mi yittewoo ay airpod boo bëgg rek am na fi ay original casque wala nga yittewoo chargeur ay chargeur yu am qualité ah prothèse yi tamit wala ay original blende ngir ar sa téléphone BTES daal ba ay yittewoo ci wàllu électronique daal soo ñëwee seet si ñu fii ci marché central bu Kaolack sa xol dina sedd am nañ yi tamit deuxième place ca Medina Baye ñu fay jaay yi tamit ay bagages électronique dañ cee dolli di jaay ay jàllaabe ak yi mbax na surtout dàll yi ñu naan dàll dëkk bi dàll yoo xamante ne soo ko solee foo romb dañ lay xoolaat mbokk yi suñu deuxième place boobu mu ngi ci Medina Baye dend ak jumaa yi daal di janoo ak kër Maolana Cheikh Ibrahim Niass wala nga wooñu ci 77 271 97 88 BTS e daal bàyyi téléphone e service daal boo fi dikkee di nga fi fekk kilifa gi di Abdoulaye Ndiaye ci woyof gi ak mën dalal gi wala ndaw yi muy àndal ci liggéey bi ku ci mel ni Adi Touré ca yarga ak dal ga El Hadj Cissé ca reegu neex ga la bàyyi téléphone et service ñoo leen di may finaalu jongante bu Xuraan bi ci Iras info neexul ba neexul bàyyi téléphone et service daal yéen a fi ne